ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp aussi di gërëm ñëpp di sant aussi liñ ma def tey porte parole bis bi euh, ngir ma liit bataaxal bi nga xamante ndaw APR yi nga xamante ni ñooy ndaw yu dëggu yi li ñu li ñu wax ci xew-xew bi xamante ni moom moo fi am ñu def français bi après def wolof bi déclaration des jeunes républicains COSER bis Jeunes Républicains récusant la désignation de comme coordinateur communal de l'appel à Thiès. Cette proposition de l'association des jeunes raquetteurs qui n'ont aucune crédibilité ne peut pas prospérer. Et pour cause, Abdoumbaou, lors des dernières législatives, n'avait pas participé à l'effort collectif qui a conduit le parti à la victoire dans le département. Par contre, le directeur général de la Poste, a sorti tous les moyens de lutte. Madame Neitike Ndiaye directrice de l'ANAM, a mouillé le maillot dans l'Ouest avec les docteurs Pape Amadou Ndiaye et autres responsables. Pour toutes ces raisons, Abdoumbaou ne peut pas diriger le parti devant ses grands responsables. Il n'est là que pour accompagner Augustin dans les délégations. Il n'a aucune base politique. Il n'a que trois personnes derrière lui. Un chargé de mission, son petit frère, sa cousine. Les jeunes qui le soutiennent aujourd'hui sont en train de zapper l'unité du parti. Ils sont là pour formater des coups et se liguent avec Babacar Fall Bef, qui n'a rien apporté au parti. La preuve à Grand le parti a lourdement chuté. Jamais on n'a perdu d'une telle façon à Grandesse. Par ailleurs, nous félicitons le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour l'organisation de la visite réservée au président de la France, Emmanuel Macron. L'image de notre pays en est sortie très grandie, une visite qui nous a valu de pencher sur les problèmes de l'éducation. On espère avec le partenariat noué avec les pays contributeurs, le secteur prendra son envol. Nous interpellons aussi le parti pour mettre à terme à certains agissements de Abdoumbaou qui dit que c'est lui qui gère les audiences avec le président de la République et lui revient de désigner les orateurs. Ce n'est qu'un film de fiction. Euh, par contre, euh, supplément, par ailleurs, nous dénonçons l'altitude de ces jeunes racketeurs qui ont besoin de reclassement au sein de leur service alors qu'ils ne travaillent pas. L'émergence du parti ATS, c'est l'unité. L'émergence du parti ATS, c'est pas L'émergence du parti ATS, c'est Ndritike. L'émergence du parti ATS, c'est les grands responsables qui mouillent leur maillot. Nous, Bamtouko Wolof. tey li waral suñu daje bi mooy dafa am ay ndaw yoo xamante ni groupe ndaw la yoo xamante ni passé wuñ seen lu dul wër di racket la responsable di di di leen wax lu dul dëgg pour am si ñoom dara association ndaw boobu nag la ñuy dénoncé parce que tey si fàttali ñoom ñoo ne woon Abdou mbaw du dara ñoom ñoo ne woon Augustin du dara tey jii ñoom ñoo tourné dem si Abdou mbaw si lim leen jox walla mbir yim leen dig ndaw yooyu nag duñu ndawu parti bi ndaw parti bi tey jii mooy COJER bi nga xamante ne mooy COJER new génération nga xamante ne dañoo set wecc di yëgal ni nag abdu na xam waruwaayam xam waruwaayam weesuwul su fekkee dafa bëgg a liggéeyal parti bi na ñëw rangé wu si derrière les responsable parce que ñun ñi dëkk ak moom Thiès xam nañ pour mu ñëw Thiès day fekk le ministre Augustin Tine di def délégation ñoom ñu àndee seen délégation muy bunge Thiès waaye li ñu xamee Abdou mooy bunge Augustin Tine ci ay délégation mais am fi benn base politique nit ku ne nag am nga ñu la topp mais tey jii képp kuy doomu Thiès xam nga ni Abdou Mbow ñetti nit ñoo topp ci ginnaawam kenn ki benn chargé de mission la boo xamante ni parti bi dugal mi euh, primature kenn kis des raqam la ñoo bokk deret kenn kis des cousinam la ñoo bokk deret kon Abdou tey jii amul base politique boo xamante ni war naa mën a jiite dëkk bi wala ñu koy jiiñ ni mooy jiite dëkk bi ñun fëkk yóbbuwul waa parti bi parce que faaw ñu respectante di wax ni Abdou na na na dal xam ni mënta jiite benn doomu Cees waa koñ ba mu dëkk sax mënu faa jiite kenn la preuve en est que élection yi nga xamante ni moom la ñuy càmbaree suñu bopp mooy élection législative yu wees yuy ñuy tappee député te moom yàlla dogal mu bokkoon si liste nationale bañ tabbaale ko si loolu du ñàkkam si militant yi ko vooteel responsable yu nekk si biir parti bi la ku si mel ni si est boobu Pape Dia ku si mel ni si ouest bi Ndeye Tické Ndiaye zone nord ñoom Ndiaga ak responsable ya fa nekk ñoo muyee seen moyo ba moom mu bokk si député yuy toog assemblée toogal fa parti mais du lu mu liggéey biir Thiès kon na wu mësta ñëw si benn dynamique unitaire boo xamante ni daf fay fësal parti bi ba ñu war kaa boole sax si bureau communal ba koy jiite kon yooyu muy def day nax boppam mi nax boppam mi nax président benn bis des yenn wax yi dafa am ñu muy fëkk mais ñi nga xam dañoo gëm parti bi gëm président fëkku leen je ndaw yooyu nga xamante ni ñëw gëmul seen bopp ba Abdou gëmloo leen ni audience yi jógee Thiès di dem présidence moom Abdou moo koy désigné laa qu'il arrête parce que ñun yàgg nañu ak président wóolu nañu président tey jii ku président woo Thiès da nga xam ne président moo koy woo mais Abdou suy gëmloo nit ñi moom mooy defar fooy d'audience wala moom mooy tànn orateur ya fa nekk pour di nax nit ñi pour ñu topp ko insister pour mu mën a fii du fi jiite dara. noonu la doon def au temps de Thierno mais tey jii du jàll parce que élection yi ñu jëm élection présidentielle la président moo soxla Sénégal moo soxla askanu Sénégal ñoo soxla parce que tey jii ku nekk xam na ni projet bi président am Sénégal comme le plan PSE faaw mu am deuxième mandat pour mu gën a dox loolu nag di ñu jariñ ñun askan wi pour que président am ko du ñu ko yàqal ñun dañuy dox nu président amee deuxième mandat dañuy massifier suñu parti à Thiès kon Abdou na na réglé si biir ndaw yi di wax rek am na kenn koo xamante ne moo la attaqué le maire te le maire Talla Sylla wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi koy félicité di ko encouragé aussi di ko wax jàmm si coalition Benno Bokk Yaakaar yooyu ndaw ñooñu génnoon wax duñu dara si parti bi ñu benn cër si parti bi euh, euh, ay ndaw la yoo xamante ni ku leen fay ñu waxal la.

ba ba mu am victoire dans le département de Thiès te commune bi daf see bay waar bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk di di wax aussi si fàttali que ni liste buy gagné kenn du ko changé élection yi wees dañoo jël euh, Pape Siré Dia def ko tête de liste mu jig ñu kon na nit ñi teer ndaw ñooñ di wax reclassement lañu bëgg kenn ku si ne Pape Siré Dia moo la jox xëy man nday tikkee ma jox xëy mais lépp lu may wax Gilbert heure bu waxee day wax pour l'intérêt di parti du ma ne kenn yàllaa ngi ne te yàlla newul nii pour lu jariñ suñu parti ñooñu see jox jox xëy ñoom ñoo doon taxaw di attaqué di xeex tey jii reclassement lañ soxla mën ñu ko am ñi ngi daw si Abdou pour mu utal leen port ñun xam nañ lépp nu mu demee port na compétence moo fay yóbbu nit compétence moo fay liggéeyloo nit nit ndaw da gëm sa bopp ndaw da gëm sa bopp suñu gëmee seen bopp bàyyi yi ñuy def parti bi jaxasoo yëf daan am yëpp si ndaw ñooñu lay juge ñu nag yëf dañ kaa jël léegi amen gis nga réunion jaxase doot fi am leneen dootu fi am si commune bi te ñun ñi ngi lancé appel président su ab Abdou mbaw commune bi su fi duggee dina ko lijjanteeg ñun am na yoo xam ne dootul jàll dootuñu bàyyi benn ndaw téye les responsable du parti am njëriñ ci parti bi di xas ay responsables loolu il faut que ça s'arrête am na responsable yoo xam mën nañoo joxe ci ñoom exemple tey jii unité mi ngi am responsable bi juboo nañu mais buñ buñ bu ñu yàq loolu dans l'ouest Ndeye Tické mi ngi def liggéey bu am solo mi ngi ci ay tournée mi ngi mi joxe ay fauteuil roulant di di jàppale ñi am tension AVC de l'autre côté ci rajo mi ngi ay emploi mi mi def ay financement mais Abdou na roy ñooñu ay la yéen su defee ni ñooñu ñu mën a wax mais deful ni ñoom mais responsable bi jox na ma xaalis naa dem xas benn responsable amul sens du noonu la ndaw di doxee ci parti oui waaw non pour le euh, ci printemps yi aussi euh, kuréel gu am solo la dem def nañ réunion kuréel gu am solo la unité la ñuy dox mais loo gis groupe goo gis am na ñoo xamante ni baaxuñu am na ñoo xamante ni printemps yi aussi pour mu leer euh, suñu kàddu Madaaba Wade lañ ko jox ndaw bu ñëw si responsable ne la printemps yi lii yabaluñ ko luñ ko waxul dëgg képp ku ñuy seeti dañ lay seeti en masse képp ku ñuy demander audience Madaaba lañ jox moom moom lañ mandaté benn ndaw bu siy wax mandaté wuñ ko yónni wuñ ko yabaluñ ko di lancer appel aussi si euh, li nga wax mouvement de soutien yi parce que tey jii quoi qu'on puisse dire am na mouvement yu baax ku si mel ni le président Babacar Fall euh, Babacar euh, Pascal Ndione ku baax la mu ngi liggéeyal parti mi ngi massifié mi ngi def lu jàll jàll Ablaye Dieng mi ngi liggéey de de son côté mi ngi def lu am solo Mamadou Ngingue mi ngi liggéey mais tey ku si mel ni beef politique moo ni mel rek mais beef amul parti benn njariñ moom parti bee koy jariñ mais par contre jariñul parti bi kon maa ngi lancé appel mouvement pour liñ leen woo beef jarul topp parce que parti soo si ñëwee da nga koy dollil mais amul dara dara dara loo xamante ni Babacar Fall beef dollil na ko bi la preuve en est que Grand Thiès suñ fa daan perte benn bi beef ñëwee fukk lañ fa ñàkk parce que yi muy diggee te du ko def amul sens parti bi soxlawuñ foofu Sénégalais soxlawtuñ fu ñu leen diggee dañuy dañu naan duut baaraam te président defal nañ loolu mi ngi jëf-jëf joo xamante nit ñi teg nañ si bët ñun liggéey bi yomb na si ñun communication bi rek la ñuy jàllale nit ñee ngi gis PUDC mi ngi fi bourse familiale lu lu bëree bari mi ngi fi kon Thiès ñu mel ne Babacar Fall nañu réglé bàyyi les mouvements aussi nañ am seen fullay bopp bi ñu créé mouvement seen diggante ak président dafa di tax amul nit ku leen mën a dégg ni day déggante ak président wala daf leen yóbbu si président wala président daf leen defal lii ñoom ay góor lañu ay nawle président lañu président aussi seen nawle lañu bu mu am naxante incha allah président Macky gore na gor gore goo xamante ni ku ko lebal ker mu fay la guddi loolu lañu amoon si lu ñuy déclaré di encouragé aussi Euh, le directeur général de la poste si liggéeyam dika a wax ni ndaw ñi di wax si ginaam bu mu leen déglu moom jëf lañ ko continuer si jëfam créé emploi mi mi ngi massifier le parti mi mi financer ses femmes ne continuer si loolu bu mu ndaw ñi ndaw ñi seen wax féliciter aussi euh, madame de Tikenja si li nga xamante ni ñu ngi koy jàppale président di financer famille aussi di jàppale ñi nga xamante dañoo am tension AVC di gërëm aussi docteur Pape Amadou Ndiaye si liggéey bu am solo bi bi muy def léegi nii rek amoon nañ ay malades yoo doon def écho moom moo ko géreel encore une fois di féliciter Babacar Fall Pascal Pascal. ñi ngi ñi ngi koy félicité Babacar Pascal Ndione ñi ngi koy félicité di ko wax ni bu mu bokk si yii moom kilifa la na kon na liggéeyal président moom su nee mi ngi doolil président dinañ ko gëm Ablaye Dieng bu mouvement Siggi Jotna ñi ngi koy félicité di ko encouragé na continuer si lii beef yooyu muy woote ay caaxaan la buñ si bokk ñu si dugg ñaan leen dañuy dégganteeg ñu nekk président ak yooyu yëpp ñun xam nañ lépp ni mu demee parti bi ni muy doxee xam nañ que ñu ngi lancé appel président na recevoir jeune Cojer bis bi na recevoir jeunes yi à Thiès na recevoir les responsable tey ji li nit ñi di wax pour le cadre am boobu tey ji faw président jëlaat responsable bi dooleel leen na dugal les responsable secrétariat exécutif na leen dugal secrétariat exécutif ñuy am information bi parce que tey Abdou liggéeyalu dara si parti bi amul dara lu mu def Thiès mais secrétariat exécutif lay ndamoo da xam nañ ni information président bàyyiwul Pape Siré Dia ci information bi bàyyiwul Ndeye Tické ci information bi bàyyiwul benn responsable ci information bi mais Abdou loolu lay ndamoo di wax ne nag Thiès président yaa ko moom ñëwal jël li nga moom yaa ngi fekk responsable yoo xam ñu ngi liggéey liggéey bu jéggi dayoo abdu nag na téye nam bàyyi ndaw yi muy waxloo ndaw yooyu duñu dara si parti bi nañ bàyyi responsable yi ñuy xas en tout cas daal Cojer bi taxaw nañ taxawaay boo xamante ni ndaw bu fi bàyyiwul a responsable dinañ la duma man moom Gilbert wax naa ko wax naa ko ndaw yi ma nekkal wax naa ko bureau coordination bi suñu parti bi nit du ko yàq ku fi bàyyiwul a xas responsable dinañ la duma ñu ngi gërëm Thiès yëpp. di encore di félicité waat président li mu def ci éducation bi ci dalal gi mu dalal euh, président France bi Emmanuel Macron ñi ñi ngi koy jaajëfal di ñaanal président yan bi gën a woyof je vous remercie wasalaam